maa ngi leen di ziare baax a baax a baax a baax voilà donc euh, di ñëw rek amal ak yéen benn waxtaan waxtaan bi nag euh, ci vidéo bi dama koy tàmbali ñaari pàcc lay doon ndax euh, situation oblige dama nekk ci benn voyage d'urgence bu gàtt donc fii euh, ak quelque temps damay am benn entretien donc euh, bu ma paree dina continuer deuxième partie yu vidéo bi waaye li waral vidéo bi ma bëgg ngeen partager ko au plus rapidement possible et au maximum li waral vidéo bi mooy dama gis coow bu yeewu te ñun nag bu ñu gisee coow bu yeewu dañuy dellu ci source yi yëpp ñu xool lan moo yëkkati coow bi ak lan moo ko wundu liir leen titre bi on est entre le marteau et l'enclume xam nga dafa am lu doy waar ci senegal dafa am lu doy waar on est en face un président qui est vraiment bu ma leen ne fépp fu ko waay mën a xalaat rek jeggi na ko maanaam il a débordé tous les maanaam bornes yi yëpp daf ko jegg Macky dafa tëb tous les bornes yoo xam ne doomu aadama wala gor mën na cee limité wu j'ai vu aujourd'hui quelques-uns te bokkuñu ci projet bi de bàyyi leen xel ñi ngeen di gis ñuy critiquer lii de ils ne font partir du projet ñu ne yaayoo lan moo tax député Pastef fi abstenir loolu laa gis ce que je vois ils disent pourquoi les députés de PASTEF ñu absteniru ci voter pas voter loi bi mais absteniru ci vote bi am tey assemblée nationale ndax loi bi suba lañ koy voter man dama dem ma def gëstu ma laaj ma ne mais waa PASTEF qu'est-ce qui va pas dama dégg ñu ne abstention ngeen def ci vote ñu ne ñun de ba ñu ñëwee assemblée nationale ba léegi bépp loi bu important ak loi bi lu mu mën a doon ci àdduna dañuy abstenir ba xam loi bi lan la wundu est-ce may dégg bu baax waa Pastef waa ex Pastef saabu bu loi ñëwee pour ñu voter ko assemblée nationale dañuy abstenir maanaam dañuy maandu ba xam loi bi lan la ba xam la ca biir ak la ca biti yëpp parce que bu leen fàtte ne ñun dañu am kilifa te kilifa googu Ousmane Sonko la déglu leen ma de dañu am kilifa te kilifa boobu Ousmane Sonko la dama gis quelques-uns ñoo xam ne ils n'ont rien à foutre avec le projet dama gis ay nit yoo xam ne bu doon waa Pastef ñooy wax bu doon ay kilifa Pastef ñooy wax bu doon ñi wundu projet bi ñooy wax dinaa ne ah loolu jar naa xoolaat jar naa dégluwaat jar naa am taxaw seetlu mais yow luy sa yoon ci luwaawu jàmbur ci këru jàmbur borom décider li muy def yéen ñëpp ngeen gàddu seeni xalima kalifa Sall je suis contre loi nasti que le je suis contre loi d'amnistie Khalifa tu as combien de prisonniers dans la prison ñaata prisonnier nga am ci kaso bi tey dama bëgg laaj rek dama bëgg a laaj rek ñaata jeune ñoo nekk ci prison Sénégal bii tey ñuy waa Khalifa Sall wala ñuy waa beneen parti politique man de li ma gis ci kaso Sénégal yi tey ce n'est que les jeunes donc faites beaucoup attention et écoutons le président Ousmane lu président Ousmane Sonko waxul waxuñu ko lu président Ousmane Sonko wax loolu la ñu wax donc man lii laa wax dama ne la jeunesse la jeunesse patriotique nañu déglu le président Ousmane Sonko ñun bi projet bi ñëwee ba léegi lan mooy suñu force on écoute le président Ousmane Sonko dama ne la jeunesse patriotique lay waxal bi Ousmane Sonko tàmbalee ba léegi moom la ñuy déglu bu leen daanu ci ay piège man bind yi ma gis yëpp commentaire yi ma gis yëpp ay récupération politique laa ci gis commentaire yi ma gis yëpp bind ma gis yëpp ay récupération politique laa ci gis dama ne loi amnistie man mii ngeen di waxal je suis le premier opposant de cette loi d'amnistie ak ay conditions am ndax dama toog ma def sama analyse pour une première fois ñaata nit ñoo nekk ci prison bi y plus de mille jeunes mille jeunes ñoo nekk ci prison bi y a plus de mille jeunes dans les prisons mille mille ñoo nekk ci prison yi junni dama bëgg ñii di ngeen laaj leen ngeen ne ñaata ci prisonniers yooyu ñoo bokk ci beneen parti politique dama man président Ousmane Sonko laay déglu te président Ousmane Sonko lépp lu mu wax loolu lay def te xale yi yéen tamit loolu laa leen digal bu leen fàtte ne on est le maître de ce jeu ñii ñu leen ñii ñuy critiquer c'est des minoritaires le président Ousmane Sonko et mille détenus sont en prison est-ce que déglu ngeen ñoom Azoura bi ñu génnee kaso est-ce que déglu ngeen ñoom Fadilou Keita quand ils sont sortis de la prison est-ce que déglu ngeen leen est-ce que vous avez écouté est-ce que déglu ngeen naka la ñuy traité détenus politiques yi ci biir kaso bi est-ce que déglu ngeen ko man Ousmane Tounkara bi ma toogee ma def samay calcul ma def sama xalaat ma ne damay déglu le président Ousmane Sonko crime de sang maanaam bépp nit bu ñu rey walla bépp nit bu ñu torturé dama jël lii nga xam ne moom mooy projet de loi bi ma jox ko ay borom xam-xam ma ne leen décortiquer leen ma ko ñu décortiquer ma ko wax ma li ci biir wax ma li ci biti ma ne je comprends maintenant plus dama bëgg ñu maandu député assemblée nationale yi les députés de l'Assemblée nationale surtout les députés de PASTEF dama bëgg ngeen déglu ndigalu président Ousmane Sonko képp kenn du amnistie nit ku dee kenn du amnistie nit ku gaañu kenn du amnistie crime de sang amul loolu amul kenn du amnistie bépp nit bu dee duñ ko amnistier bépp crime de sang duñ ko am amnistier nañu déglu suñuy député nañu déglu le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko toujours il donne des ordres te Ousmane Sonko du trahir Ousmane Sonko nee na benn crime de sang du ko amnistier Ousmane Sonko nee na benn nit bu dee du ko amnistier déedéet mais nañ ko déglu On n'a qu'à écouter le président Ousmane Sonko dama ne nañu déglu Ousmane Sonko ñun dégluwuñu Khalifa Sall ndax Khalifa Sall ngi diil dégluwuñu benn nit dama ne dafa am loo xam ne dinaa leen ko fi wax tey te am na kilifa yu ma woo bi ma leen ne damay am discussion ci loolu sax xam nga luñ ma njëkk wax ñu ne ma déedéet déedéet comme dañu nekk ci Yewwi Askan Wi nañu demee xel rek man jot naa information benn kilifa gu mag ci Yewwi Askan Wi du Khalifa Sall du Khalifa Sall te du Déthié Fall boo xam ne Macky Sall recevoir na ko bëgg naa ngeen xool commentaire yi gën a mag tey ci réseaux sociaux bi benn parti politique buy ngand ngandlu buy mel ni dafa set wicc ñoom ñooy malaaka yi seen leader Macky Sall daf ko recevoir pour muy ruube bàyyi leen loolu xel delloo siwaat leen seen xel man dara fokkul sama bët xam ngeen ne man man xam ngeen lu tax ma bëgg a di wax xam ngeen lan moo bëgg lan moo tax ngeen bëgg man may ñëw di waxtaan ak sénégalais yi toujours c'est parce que parfois damay comprendre damay gis dara ma comprendre ko ma bàyyi ko ci loxo Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina joxe ndigal te ndigalam député yi ci la ñuy way te député yi ndigalu Ousmane Sonko bi ñuy woy ñun ndigal boobu la ñuy protéger point ci loolu rek lay dox man doxuma ci ndigalu Khalifa Sall gawma leen man Ousmane Sonko laa gëm te ndigal lu mu joxe je prends mes risques leen loolu xel dama ne bàyyi leen loolu xel dama ne bàyyi leen loolu xel il faut écouter le président Ousmane Sonko ne vous précipitez pas bu kenn yàkkamti bu kenn naagu nañu déglu le président Ousmane Sonko boo leen demoon déglu vidéo Ousmane Sonko bu mujj bi bi ñu publier fekk mu nekk prison il a tout clarifié donc nañu déglu président Ousmane Sonko tu n'es pas le capitaine d'un bateau tu ne peux pas conduire le bateau allons écouter le président Ousmane Sonko képp nag pas leneen écoutons le président Ousmane Sonko et acceptons les décisions du président Ousmane Sonko man loolu rek a ma intéresse leneen intéressé ma damane ne toog naa xalaat nelaw yeewu consulter ay nit waxtaan ak ay nit yu seen xam-xam mat ils m'ont très bien conseillé consultez le président Ousmane Sonko et écoutez le président Ousmane Sonko rien d'autre Sonko rek sonko rek la ñuy topp sonko rek la ñuy déglu sonko rek la ñuy topp te sonko rek la ñuy déglu man dégluwuma beneen nit jëluma consigne beneen nit toppuma beneen nit waxuma lu beneen nit wax li président Ousmane Sonko wax rekk ci la ñuy dox c'est pas tous les décisions Ousmane sonk du décision yi mu jël yëpp ñooy rafet bàyyi leen loolu xel bàyyi leen xel ne dafa nekk di toj di tabaxaat lu baaxul tous les décisions prises ne seront pas li ci li ñu gën a neex déedéet mais nañ ko déglu pourquoi ñun ñu war a toog di déglu ay nit yu nekkul prison di déglu ay nit yu amul benn nit prison di déglu ay nit yu amul benn jafe-jafe ñu naan la je supporte ceci ou je supporte pas cela ñun ñoom ñooy kan ñooñu man man politicien bu ñëw nga wax dama lay laaj ñaata nit nga am prison kan moo nekk ci prison bi ndax yow nga wax ma nga leeralal ma am na ñoo xam ne tey sëñ bi génn président Ousmane Sonko arrangé wu leen ndax Ousmane Sonko bu génnee am na ñoo xam ne dootuñu leen xool dëgg la kan mooy gis dama encore une fois le président Ousmane Sonko c'est notre fierté le président Ousmane Sonko c'est notre président moom la ñuy déglu moom lañu ñu topp kan mooy gis Khalifa Sall ak bëñam yu fànge yii nga gis Ousmane Sonko bu taxaw nga ngay xool xalifa mënul nekk ak yeneen yu mel ni ñu lu ma bëggul tudd ces gens qui nous emmerdent là dama ne noppal leen ñu te ngeen dimbali ñu Ousmane Sonko lañuy ñuy déglu it's simple nañ ko déglu moom dina joxe ay consigne am consigne yu mu joxe ñun dañ koy accepte c'est ce qu'on va suivre député yi assemblée nationale déglu leen seeni ay njiit il faut écouter les leaders président Ousmane Sonko jox dina joxe consigne consigne yi mu joxe topp leen ko voilà ces anciens politiciens là ñu ngi ci beneen tournaaru deal te deal boobu je vais vous dire que arrangé wuñu ñun déglu ma encore Ousmane Sonko ñun moom la ñu gëm mais on a mille six cent jeunes dans les prisons mille six cent paquetage bi keroog biñ ma ko waxee dama jooy j'ai pleuré j'ai écouté Azoura j'ai écouté toutes ces personnes bu fekkee ne sénégalais yi dañuy génn te y pas de crime de sang maanaam ba léegi ñi rey nit dinañ leen mën a topp parce que loi d'amnistie bi dafa exclure homme de tenue yi dafa exclure samba yi képp ku rey nit wala ku tuur deret loi bi protégé wu la nañ ko liiraat nañ ko toppaat te ñu déglu la président Ousmane Sonko sama xol neexul parce que parfois da ngay confuse tey laa wax ak sama benn kilifa ma ne ko parfois moi je suis pas politique parfois damay damay jaaxle jaaxle lay def mu ne ma saa la loolu dalee delloo siwaatal sa xel nga toog nga déglu te billahi je vous dis avec fermeté le président Ousmane Sonko du def mistake maanaam du juum ci mbir mi parce qu'il connaît Macky Sall plus que nous suñu ñàkk xorom yi ngeen di dégg ñuy tëbaka dal di leen waxloo di leen defloo di leen pousse bu leen kenn déglu ne les écoutez pas c'est des manipulateurs man dama jël sama temps ma dem ci ay borom xam-xam wax ak ñoom laaj leen ay question yu dëgër Ousmane Sonko du politicien ñële ay politicien lañu donc bàyyi leen leen xel nañu déglu président Ousmane Sonko man Ousmane Sonko képp lay déglu billahi bu Ousmane Sonko génnoon suba mu ne voté leen loi d'amnistie bi ku ko voté man damay xeex ak yow bu Ousmane Sonko génnoon suba mu ne bu leen voté loi bi ku ko voté dama xeex ak yow man Ousmane Sonko lay topp donc gars yi nañu topp le président Ousmane Sonko il a donné ses consignes à ses députés Ousmane jox na ay consignes ay député am député yi ko représenté jox na leen consigne nañ leen déglu nañ leen déglu bu suba bu ñu demee plénière on n'a qu'à écouter bu ñu laajee vote nañu déglu Ousmane Sonko ndigal li mu joxe nañ ko topp ba mu sës rek bu keneen def leneen bu leen déglu nit ñi di wax man xale yi di tëb di dal pas ceci pas cela xam leen d'abord raison garder discipline de parti nañu déglu le président Ousmane Sonko nañ leen déglu quatre vingt di pour cent de ces personnes c'est des hypocrites gëmuñu Sénégal nañ leen déglu on n'a qu'à les écouter quatre vingt di pour cent de ces personnes on n'a qu'à on on n'a qu'à on n'a qu'à écouter le président Ousmane Sonko nañu déglu man fokk dara fokkul samay bët xam leen ne moi je suis un activiste libre dama bëgg ma présenté waat sama bopp sénégalais yi moi je suis un libre mooy man awma salaire maa moom sama bopp sama liggéeyu bopp laa yor te lu ma neex laay lekk lu ma neex laay naan fu ma neex laay tëdd te Ousmane Sonko bu falo wutuma place duma laal politique pour ñu dégg mais dama ne nañu déglu Ousmane Sonko bu leen déglu keneen coow li bari na waaye Ousmane Sonko joxe na ndigal il a décidé te ndigal lu baax la joxe Ousmane Sonko joxe na ndigal nañu déglu kilifa yi mu yónni assemblée nationale bu dee loi bi lu ñu war a voté dinañ ko voté bu dee lu ñu warul voté duñ ko voté absteniru ça ne veut pas dire que tu es d'accord ça veut dire que tu ne sais pas que tu tu vas faire mais dëgg la bu dee dañ la tegal loi yow loi bi xamuloo lépp li ci biir tu as des questions nit ku intelligent tu demandes les questions te Pastef noonu lay doxee dans tous les lois qu'ils ont passées à l'Assemblée nationale Pastef noonu lay doxee dafay abstenir ci vote yi mu déglu ba am lu ko wóor mu voté ni mu waree donc moo tax ma ne waat ma ñëw ma gaaw ma wax ak sama frère yi ak sama sœur yi rappaajo bi bari na ci réseau yi réseau yi mi ngi mel ni tulleeg male tey leen yen Ousmane Sonko mooy seen capitaine Ousmane Sonko mooy suñu capitaine nañu déglu président Ousmane Sonko nañ ko déglu nañ ko déglu nañu déglu Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko kese nañ ko déglu bu ñu kenn dugal ci lu ñu xamul bu ñu kenn wax loolu ñu xamul bu ñu kenn bind loolu ñu xamul bu ñu kenn dugal ci benn xarma jaaga je vous que mes informations son les bon ndax man yéen ñu bari ci yéen seen kilifa la ndax ku ku laxas ku luñ koy mën a waxee ku lakk ñaar eh, fan juróom fukki at ak benn kooku nekkatul xale j'ai beaucoup d'expérience dans cette vie xam naa expérience su manipulation xam naa expérience su tappalekat yi xam naa expérience su nelawlookat yi je connais beaucoup de choses dans cette vie donc dama ne nañu delloo siwaat suñu xel delloo siwaat suñu xel delloo siwaat suñu xel ngeen déglu ma bu baax ñu delloo siwaat suñu xel nañu delloo siwaat suñu xel te déglu la président Ousmane Sonko incha allahu rabbi ci kanam tuuti ci kanam tuuti dinaa ñëwaat fii ak ñaari waxtu damay dem wax ak ñenn ñi sollicité waxtaan ak kilifa yi xam li xew nañu déglu Ousmane sonk tey leen rek Ousmane nee nañu nañ ko wóolu nañu bàyyi lépp ci loxoom donc ginnaaw yàlla ñun Ousmane Sonko la ñu gëm dañuy teg lépp ci loxoom xam nañu ne duñu jaay xam nañu ne duñu waxaale xam nañu ne duñu trahir on le sait ça on le sait on a on a l'assurance qu'on ne sera pas trahi par Ousmane moom la ñu gëm Yewwi Askan bi la ñu bokk nag amul problème mais ñun Ousmane Sonko la ñu gëm bokk ak gëm du benn déglu leen Ousmane Sonko s'il vous rek amul leneen nañu déglu Ousmane Sonko dama ne te déglu leen

vidéo Ousmane Sonko bu mujj bim ñu indil te ñu dégg ko te ñu xam ko te ñu xam lim ci wax ñun Ousmane Sonko rek la ñuy topp topp ñu beneen doomu aadama topp ñu benn nit ak ay pexeem gars yi dinaa ñëw ci deuxième partie video bi ci kanam tuuti incha allahu rabbi patiente leen dina fekk ma dajale vidéo yi yëpp ma wax ak kilifa yi ma war a waxal yëpp waaye pour le moment absteniru leen comme ni suñu kilifa yi absteniroo ci assemblée nationale absteniru leen ci débat yoo xam ne maîtriser wu leen ko voilà nañu absteniru comme maîtriser guñu li nga xam ne moom la ñuy wax te on a des juristes <coughs> on a des avocats on a des députés nañu déglu incha allah dinaa ñëwaat ci kanam tuuti wa salaamaaleykum wa rahmatullah